bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yi nga xam ne yéen ñuy seetaan ak ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu ñu ngi fii ci pàkk bu mag di waajal bés bu mag fii ci Daaru Salaam dëkkub maam Cheikh Anta Mbàkke borom gaawaan ngir wàccaayug bés bi nga xam ne ni at mu jot sëriñ Fallou Galass Sylla da koy def muy bésu sant ak ñaan ñu jagleel ko sëriñ moo du roq ya gannaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonentam bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi ñu ngi ñaanal sëriñ Mountakha Mbacké xalif général des yàgg fi lool te ànd ak wér ci sëriñ Cheikh Anta Mbacké xalifa sëriñ Modou Rokhaya sëriñ Fallou Galass Sylla nag mooy woote bés bu mag boobu de bésu ñaan ak sant benn fan incha allah ci weeru avril lay doon li yees ci bés boobu nag sëriñ Fallou Galass la daf ciy delloo lisla euh, njukkal jàmbaaru lislaam ji nga xam ne moo fi bàyyeekoo bu yàggul di sëriñ Sidi Mokhtar Mbacké xalif général des Mourides yàlla nañu ko yàlla fayal looloo tax ñu toog fii ci jataay bi ak sëriñ Cheikh Anta xalifa sëriñ Modou Rokhaya waaye it ñu ngi toog fii ak sëriñ Khadim Mbacké moom sëriñ Sidi Mokhtar mu toog fi ci turu sëriñ Moustapha Mbacke mi nga xam ne nii moo nekk ci bopp njaboot gi duma guddal nag dañuy jël kàddu yi jox ko koo xam ne fu ñu tuddee Fallou Gallassi la rek tudd ko fa muy sëriñ Gana Messere mi nga xam ne nii moom mooy wax ci turam waaye it sëriñ Cheikh la bésu alxuraan la bésu ñaan la dina jël kàddu wax ci fànn woowu sëriñ Xaadim Mbacke wax naa leen ko léegi dina wax ci turu Serigne Moustapha mi nga xam ne moo nekk ci bopp njabootug Serigne Sidi Mokhtar mi nga xam ne dañ koy delloo njukkal ci bés boobu bu ñu noppee nag Serigne Cheikh Anta Mbacké ñaan ñu yëkkati jataay bi kon dañuy jox kàddu gi sëriñ Gana Messere Mokhtar mu wax ci turu Serigne Fallou Galass Sylla mi nga xam ne moo woote bés bi taan rajim bismillahi rahmaani rahim bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen nuyoo ci pàkk bu sell bu barkeel bi di Daaru Salaam ci kanam kilifa gu màgg gu tedd gi di Serigne Cheikh Anta mi nga xam ne moo nekk ci bopp njaboot sëñ Modou Rokhaya ñu di ko ñaanal yàgg ak wér di ñaanal xalifa général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké kàddu yi nuy yëkkati nag mbokk yi boo leen ko déggee xam li ko waral mooy bis boo xam ne Serigne Fallou Gala Syll mi nga xam ne kenn ku ne xam noo ko ci waaru bay ci toolu Serigne Touba Khadim Rasoul ci di ko liggéeyal ci guddi ak ci bëccëgam moo am bis boo xam ne nag daf ci fàttaliku ak a ñaanal ak a sant Cheikh Ahmadou Bamba waaye di ñaanal nag wasilaam wu sell wa di ko fàttaliku muy sëñ Modou Rokhaya di bis boo xam ne nag dafa war a doon benn fan incha allahu ci weeru afril bii di ñëw di bis boo xam ne nag dañu koy yendoo ba ngoon waaye ci teewaayu nag Serigne Cheikh Anta Mbacké di bis boo xam ne bisu alxuraan la bisu xasiida la bisu zikar la di bis boo xam ne it su fàttaliku baax ak melo wi nga xam ne sëñ Modou Rokhaya amoon na ko waaye bi bisu waxtaane kenn ku si Ahmadou Bamba rasul Rasuul sëriñ Fallou Galas nag di wax ne mënula lim ndax moom day dafa jàppe boppam ne soppeem ñëpp la ndax képp koy wax si la ilaha illa anna muhammadu rasulullah tabbal na la ci biir xolam waaye nag rawatina képp koo xam ne yaa ngi ci ahmadou bamba xaadimu rasul kon képp koo xam ne yaa ngi dégg woote bi baa nga di ko gis nee na yëgal ne mi ngi la ko yëgal te di sàkku foo mën a nekk ay ñaan ci alxuraan ak xasiida jëmee ko ci jëmm ju sell jooju sëriñ Modou Rokhaya waaye jëmee ko ci jëmm yi nga xam ne it ñoom lañu ñu fàttalikoo bis bi muy sëriñ Cheikh Sidi Muxtaar mi nga xam ne ku xam sëriñ Cheikh Sidi Muxtaar xam digganteem mag sëriñ Cheikh mii nu dendal ci ay yu baree bari dox seen diggante ci ak mbokkoo waaye ci xaritoo ak safoo ak jege yàlla ci lépp loo xam ne doy la woon na ko ci yu baree bari di bis boo xam ne nag nee na fàttewul képp kuy mbokk waaye képp ku dib taalibe képp ku mën a doon mi ngi la koy yëgal di ci sàkku sa teewaay di ci sàkku sa ñaan bu fekkee ne sax ñëw mënta jàppandi di xam ne lépp loo xam ne am na ko ci bis bi mi ngi ñaan yàlla sunu borom mu delloo ko ci kilifa gu baax googale di sëriñ Modou Rokhaya waaye sëriñ Cheikh Sidil Mokhtar mi nga xam dañ koy fàttaliku waaye di ñaanal nag sëriñ Cheikh Anta mi suñu borom yàggal ko fi te wéral ko fi mooy képp ku mu bokkal liggéey bii mi ngi la koy yëgal moo xam muy waar wi ñu nekk muy presse yëpp kenn ku ci nekk foo ca nekk wet goo ca féete sëñ Fallou Galas nee na mi ngi la yëgal waaye ñi bokkal dëkk bi mi ngi leen koy yëgal ci kenn ku mën a doon ak ñi nekk ci bitti dëkk bi tàmbalee ko ci bokki boppam ak ñi mu bokkal kër gii nga xam ne mooy kër sëñ Cheikh Anta nga ne mooy kër maam Cheikh Anta ñoom bis bi seen bisa ndax ku tudd sëñ Modou Rokhaya tudd nga yoonu Murid ku tudd sëñ Modou Rokhaya tudd nga Daaru Salaam kon bis baa ngi noonu war a doon incha allahu dimanche benn fan ci Daaru Salaam sëñ Fallou ngi woo ñëpp bàyyiwul ñëpp bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn wasalaamaaleykum wa rahmatullah auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa mawlana muhammadin il wa ala wa sahbihi sawi ridwani wa tamkin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu ci turu sëriñ bi di sof sunub nuyoo ci bokk yi fi jiitu di fàttaliku bis bii nga xam ne moom la sëñ Fallou Gala la di amal fii ci Daaru Salaam di bisub sant sëriñ Mouhamadou Rokhaya nga xam ne yoonu murit wépp mën naa ne ñoom la ko defal rawatina ku bokk Daaru Salaam waaye nag képp koo xam ne sëriñ Modou Rokhaya mooy sa bunt bis bi sa bisa ndax sëriñ Modou Rokhaya la koy defal ba tax na li ci war a jiitu nga xam ne moom la ci jiital muy njàngum alxuraan mu di ko sàkk ci mbooleem daayira kaamil yi nga xam ne ñoo nekk ci yoon wi te di ci ciital daayira kaamil yi nga xam ne moo nekk fii ci Daaru Salaam ak daara alxuraan yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Daaru Salaam ak li ko wër eh, tàmbale ci sëriñ ballagay ak eh, sëriñ Basiru Sakho ak daare kaamil yi fi dekk yëpp mu ngi sàkku ci ñoom duñ man ci alxuraan ñu jàng ko mi ngi dagaan nag ak a yalwaan limub 97 kaamil nee na ngir ñu jagleel ko Cheikh Sidil Muxtaar mi nga xam ne moo làqu ci suñuy bët barki démb waaye ñu jilaatab lim itam 78 kaamil jagleel ko sunu jàmbaar ju baax ja murid saadix ba sëriñ Mouhamadou Roqeya ak lu ñu ci mën a boole ci xasida rawatina xasida ak sindiidi nee ne mi ngi koy sàkku nag ci ñëpp te lu ci waay man mu def ko ci ay salaatu ala nabi itam mu mu def ko ngir yéene yool boobu sëriñ Mouhamadou Roqeya ak mbooleem jabatug borom gaawaan gi jiitu ak jullit yëpp ak taalibe yëpp waaye jagleel Cheikh Sidi Moukhtar mi jagleel bis bi ñaan googu ma wax itam mooy alxuraan lu ñu ci man lim boobu 97 kaamil ngir ñu jagleel ko ko loolu moo doonoon yëgle bi ci wàllum njàngam alxuraan mi ndax euh, sëriñ Modou Rokhaya ku koy defal biskat ji la def ci euh, jiital ci alxuraan lu lu muy bëggee ndax moom sëñ Tuubaa rek ko ñor sëñ Tuubaa alxuraan rek ko ñoroon te it ci yaakaaram yëpp ci la ko jëmee woon kitaabun bihi narjo minallahi rahmatan war nan joo bi si duniyaa ba axura minal kar bi loolu la sëriñ Tuubaa wax kon ku defal sëriñ Moodu Rokhaya bis jiital alxuraan lu ko neex la jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bi nu sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci sayduna Muhammad alayhi salaatu wa salaam di sant Seexuna si Ahmadou Bamba xaadimu rasul di ñaanal ki nga xam ni moo fi toog jataayu si Ahmadou Bamba xaadimu rasul di Seex Muntaxa sunu boroom guddal aw fanam ba li mu yéene lépp ci yoo toolu si Ahmadou Bamba bi sunu woroom àggale ko ci jàmm ak salaam ñu leen di nuyu ci turu sëriñ Moustapha mu Cheikh Sidi Muxtaar di xalifa sëriñ Baara mbakk tey ci suuf di xalifa Sidi Muxtaar ñu ñëwee fi ñaari tànk yoo xam ni tànk yi cant rek la ak tànk yi ngërëm mu jëme ko ci euh, sëriñ Cheikh Anta mi nga xamante ni kenn ku nekk xamoon na digganteem ak sëriñ bi loolu loolee nag la sëriñ Moustapha di feddali ak njabootuk sëriñ Bara gépp eh, lam ko waxoon rek ne ko lépp loo xamante ni loo nekk rek danañ ca nekkandoo ak yow loolu moo waral sunu jotaay bi tey jii eh, bisam bi nga xamante ni bis bi nga xam ne ñu ngi koy def di ko defal waajuru mu tedd ba nga xamante ni sëriñ mu roqee mu nekkoon kenn ak sëriñ bi sëñ Sidi Moxtaar ba loolee di ba ci sëriñ Cheikh Anta mi nga xam ni sëriñ bi xàmmeewu koog doomi boppam yi mu jur te am na yoo loo xamante ni sax am na lu mu ko xamal loo xam ne ñun xamaluñ ko ko te lépp ci ab yaram ak ay tegginam ak ak taalibeem moo ko fa àggale ci digganteem ak sëriñ bi ba sëriñ bi dénkoon ko lu baree baree bëri loolee nag moom la sëriñ Moustapha di gën a feddali ci digganteem ak moom ak njaboot gi yëpp di ko séeréel mbooleem koo xamante ni si yaa ngi fii ci Daaru Salaam ak mbooleem ku nekk ci e, Touba loole daal la fa ko sëriñ bi tegoon ak nam defoon ak sëriñ bi loole saa su nekk nee na ma nga ca guddi ma nga ca bëccëg te xam ni am sëriñ bi ci jëmmi boppam yóbbaale na ngërëmul suñu Cheikh Anta mi kon loolu e, moo tax mu ni ma boo demee nga teewal na fa e, jottali ma kàddu yooyu te xam ni lépp day lenn kon ñu ñu ñaan képp ku fi teew ku nekk rek sunu borom jéggala say bakkaar ndax euh, dëkk bi euh, dëkk bi nga xamante ni euh, yaakaar na ni ku fi teg sa tànk sunu borom jéggala say bakkaar kon képp ku fi teew ku nekk walla nga teew ci bis bi rek wala nga amoon yéene rek yàlla na suñu borom jéggal say bakkaar bi barakati xaadim rasul ndax ki ñu koy defal ku ko jar la tey ku ko mat la te it ku matti di fàttaliku la te boobaak léegi yàgg na te heure bu ñu ko defee bu jàllee rek danañ gis ay xéwal ci àdduna sépp waxantuma la ak Sénégal waxantuma la ak Touba wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sallallahu alayhi yu baax mu àndaloon sant Serigne tubaa noo ngi nuyu mbokk yépp ci turu ki nga xam ne mooy Serigne Touba. Cheikh Mountakha Mbacké. ni ma koy wax rek jamono ju nekk euh, ci yoonu murit euh, képp koo xam ne yaa fi toogal sëriñ Touba ci man sama wàll ci Serigne Touba lay tàmbalee digg bi sama digg bi sëriñ Touba la bu may jeexal ci sëriñ Touba lay jeexale kon nag ci tubaa Touba Cheikh Mountakha mi ngi nuyu mboolem taalibe yi ndax moom lañ fi toogal di sant mboolem taalibe yi. Sëñ Fallou Galass Syll mii nag li muy def nii man looma ma seen may yëngu rek xamal ne gis naa ca biir Serigne Touba gis naa ca biir alquran gis naa ca biir yonente bi gis naa ca biir maam Cheikh Anta waaye fasakkir inna faati zikra sunu borom moo ko waxoon yonente bi kon buy fàttaliku di fàttaliku jàmbaar joo xam ne. liggéeyal Sëriñ Tuubaa rek la defoon muy am xëyam def ko muy am ngontam loolu bis la boo xam ne képp koo xam ne positifu sëriñ Modou Rokhaya neex na la wala positifu sëriñ Modou Rokhaya bëgg ko jaa bokk bis boobu war naa rëy ci yow war nga cee teew si ñi koy jiite ginnaaw euh, sëriñ Tuubaa Seex euh, Sëriñ Muntaxa moo di sëriñ Maam Mor Mbacke mi xalifu maam Cheikh eh, ak rakkam Serigne Mbacke Anta ak njabootu borom gaawoon gépp ak Serigne Abdoul Khadir xalifa Serigne Modou Mamoun ak rakkam Serigne Abou Mbacke eh, ak njabootu suñ Modou Mamoun gépp ak njabootu maam Cheikh Anta gépp ñoom ñooy ñooy jiite bis bi ci seen tur itam laay wax li may wax eh, kon nag. Eh, ñooñu ñooy jëwriñ yi eh, rawatina nag li ko tàmbalee ci bis bii ak keroog ba Cheikh Sil Muxtaar demee àjjana man lépp lu ma fi defati dama wax ne nañ ko duppee Cheikh Sidil Muxtaar ndax defal na ma loo xam ne mënuma koo fay mukk ci àdduna dama ci niral rek dëgg la jàppoon naa ne li ma sëriñ Saliou defal kenn mënu maa defal lu ko weesu li ma laaj baara defal kenn mënu maa defal lu ko weesu waaye sëriñ Muntaxaat li mu ma defal kenn mënu kenn mënta def lu ko weesu Cheikh lu Mokhtar kon nag miis bi moo tax duppe gi ñu ko duppee Cheikh Sidil Mokhtar tax na ma bëgg taalibe yépp ku ko mën a ku ko man nga teew si ci te xam boo fi teewee. la Cheikh lu Muxtaar waxoon ci dëkk bii ne ku fi teg sa tànk yàlla jégal si bàkkaar ndax dañ koo wax ne dañoo wax ne Cheikh Sidil Muxtaar nee nag ku dem Daaru Salaam tey muy bis bi Sëriñ Amidu jógee ñu jégal say bàkkaar bañ ko ko waxee mun ne déet waxuma lool damaa wax ne ku teg sa tànk ci suuf su Daaru Salaam suñu borom dana la jégal say bàkkaar kon nag Fallou Galass la jëwriñ la ju mat jëwriñ ci kër gi te it yëngutu bu mu yëngutu rek sëriñ tubaa tax loolu ma waral kër sëriñ tubaa yëpp fu ci ne ma yebal ko mu nekkal ma fa la ma fa war a def mu di ma ko fa defal ndax doy na ma ci te ma ngi ko fay jëfe fu ma ko yebal rek bu ñëwee ma ma gis euh, ñooñe seen mbég euh, gis naa kayit woo xam ne sëriñ Fallou Mbacke ci weer wi mu koy defee ndax yàlla dimbale na ko weer wi mu koy defee weeru ngëneel la ci la sëriñ Fallou gane àdduna moom mi moo tax aw turam am waaw weer wi moo tax aw turam am ndax ci weer wi ci la sëriñ Fallou gane àdduna kon ñu tudde ko sëriñ fallu ak yeneen Fallou yi ci des yëpp itam weer wi mooy seen weer kon loolu mel na ni eh, li mu dajeel firnde la ci ne li muy ñaan sunu boroom dana ko nangu ñaan ko nangu nag foo ko dégg boo doon jël avion sax jar na ko nga ñëw fekk si ko rawatina nag nga ñëw def ci dara waaw kon gisoon ak kayit woo xam ne Sëñ Fallu moo ko bindoon bu yàgg màggalu tubaa wax ne Seex Anta Silla bàyyi Fallu suñ Fallu Silla mi fu mu bëgg a dugg ci sama kër kees gu mu bëgg a dugg am na ndigalul dugg fa signé ca suuf alxaaji Mouhamadou Fadilou Mbacké jox ko suñ seex si la mu yor kon nag loolee moo tax kër suñ tubaay yëpp ma yebal ko fa mu nekkal ma fa waaw kon nag weer wi weerama ñaaniñ ci ñaan yëpp na dellu ci e, sëriñ bi sëriñ bi wisaare ko ci njabootam gi rawatina rawa wisaare ko ci njabootuk boppam gi wisaare ko ci njabootuk maam Cheikh Anta wisaare ko ci njabootuk am Maram gépp wisaare ko ci jullit yëpp euh, rawatina nag Cheikh Sidil Muxtaar mi nga xam ne guddi gi moo bis bii moom moo ko moom tey moom lañ ko jagleel luñ fi def ci yëngatu suba ak ngoon moom lañ ko jagleel moo tax kaamil alxuraan yi ñuy jàng ñu def ko limub ay at yi mu am ci at am ci kaw suuf yàlla na ko ci yàlla ak sëñ bi jotale te sëñ Moustapha mi fi bàyyi itam te mu yebal sëñ Xaadim mi nuy ñaan suñu borom sàmmal nu ko ba yéene ju Cheikh Sidi Mokhtar yéene woon mu àggale ko ni mu ko bëggee li feeñ ci tuyaaba daal yàlla na ko bokk ak taalibe bi yëpp bokk ko jullit yëpp bokk ko waa lislaam bépp jërë jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah. benn fan ci weeru avril. di fukki fan ak ñeent ci weeru rajab muy bés bi nga xam ne sëriñ falu gala Sylla moo ko daan def at mu jot di ci delloo njukkal sëriñ Modou Rokhaya bés boobe nag mu tànn ci ren di ci rendre omage sëriñ Sidi Mokhtar Mbacké xalif général des mourides sunu borom dolli koy leer te tas ñu ci barkeem muy dagaan juróom-ñeent fukki kaamil ak juróom-ñaar ñu jàng ko ci alxuraan jagleel yoon wi sëriñ Sidi Moxtaar waaye it jàng juróom-ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett ñaanal moo Modou Rokhaya sëriñ Fallou Gala Sylla nag bu delloo njukkal sëriñ Sidi Moxtaar delloo na njukkal sëriñ Cheikh Anta mi nga xam ne ñëpp xamoon nañ seen diggante kon nag nee na mu ngi woo ñëpp te koo xam ne képp kuy soppee mu Rasuul xam nga ne sëriñ fallu Gala Sylla amul frontière ci yoon wi kon bésam kenn warul xaar ñu di la ci woo képp ku dégg woote bi rek xamal ne mooy sa invitation benn fan ci weeru avril lay doon fukki fan ak ñeent ci weeru rajab di dibéer yal nañu ci yàlla yóbbu ci jàmm ñu def ci euh, lépp luñ ci ñaanit sunu boroom nangul ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa amiin amiin barke sëñ